sëriñ Basiru moomu noon dinaa xamal ñi fi newoon sëriñ bu baax bi fi newoon ba ñëpp xam na kenn la yow paate jëng def ci bayit laa la digal wutal kayit te soo noppee nang ma ko yoon fi rasen lu yomb la Seex Ibra Faati lay xamal ñi ko xamul ñoom laay xamal na sunu sëriñ loo bépp doom mel ni moom la moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mën ta war ñi meeb xam la ko war wuute wu la kersaaki taggil moo ko am te mët wala naam du xeeb du naw moo bari jom ñi metañu ku sell la salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen bu baax baax ci kuréel gii di takku defar Daarul Muxti di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa mi fi sëriñ Touba di ko ñaan mu yàgg fi loolu téwér di ci teg sëriñ Abbas mi xalifa borom Daarul Muxti di ko ñaan yàgg fi loolu téwér moom it di ci teg sëriñ mu suñu Awa mi nga ne moo jiite kuréel gii di takku defar Daarul ñaan suñu borom mu defal ñu ndimbal naa ñu bëggoon ñëw defal leen bilan financier mois bi ñu génn muy mois de juillet bi ñu génn bilan financier mooy li dugg ci kuréel gi ci xaalis ci weeru juillet bi ñu génn ak ak li fi génn moom la leen bëgg a leeral incha allah kon dañuy tàmbalee ci biir réew mi ñu njëkkee ci Daaru Mooti Daaru Mooti li fa dugg ci mois de juillet mu ngi toll ci neuf cent cinquante six six mille ñu jiital Sëriñ Modou Abbas Mbacké neuf cent cinquante six mille mooy lu dugg Daaru Mooti ci kuréel gi di tax ko defar Daaru Mooti Touba Mbacké ci njiitu Sëriñ mu Awa Balla Ndiaye li fa dugg ci weer di mois de juillet mi nekk cent six mille cent 106 mille francs moo dugg ci Touba Mbacké ci Dakar ci njiital Serigne Moustapha Sylla la lafa dugg mi ngi toll ci 302 000 deux mille moo mooy li fa dugg ci mois de juillet bii nii ci Orange Money bi 77 449 47 16 li fa dugg ci mois de juillet bi mi ngi toll ci cent 113 408 113 408 soo boolee loolu lépp muy lu dugg ci biir réew mi ci mois de juillet bi mi ngi toll ci 1 million 477 mille 408 1 million cent 477 mille 408 mooy li nga xamante ni dugg na ci kees yi takk dafa daara mu ci weeru juillet bi ñu génn ñu dem ci wàllu bitim réew ñu tàmbalee ko ci euh, Maroc Maroc ci njiital yaa salaam Gueye dugg euh, nañ 30 30 mille 30 mille moo mooy li dugg ci kees takk dafa daara mu ci ci Maroc Afrique du Sud ci njiital Serigne Cheikhouna Mbacké mu suñ ko so gànnaar yónnee nañ 400 15 400 France njiital Serigne Cheikh Padal Mbacké dugal nañ ci keesu takk dafa takku defar Daaru Moxti ci mois de juillet bi 47000 47000 francs Italie ci njiital Serigne Modou Kara Diop Milan dugal nañ ci ci mois de juillet bi 35000 35000 mooy lu dugg ci keesu takk defar Daaru Moxti jóge Italie ci mois de juillet bi buñ boolee lu dugg lépp ci bitim réew ci keesu takk defar Daaru Moxti mu ngi toll ci mille cent cinq cent 527400 mooy li dugg ci keesu Takku-Rafaa Daaru Muxti jógee ci bitim réew léegi bu ñu boolee li dugg ci réew mi ak li dugg ci bitim réew lay nekk ci 2 millions 4 mille 808 2 millions 4 mille 808 mooy mooy li li nga xamante ne moo dugg ci keesu Takku-Rafaa daal Muxti ci mois de juillet bii nii kon ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy fere yi frais yi nga xamante ne dugg na ci euh, def nañ ko def nañ li nga xamante ne ko ci ay frais ci mois de juillet bi ñu ñu njëkkee ko ci reboisement bi ñu amaloon le 23 am na reboisement bu ñu def garab yi ñu doon jëmbat ci pencu mborom Daaru Muxti mi ak ci biir jumaa ji jëndoon nañu lu tolloog ay ay ay garab koko 110 ko garab liñ ci financé woon lépp mi ngi tolloon ci cent 829 600 829 600 mooy budget euh, reboisement bi ñu amaloon ci le 23 juillet bi passé am na assemblée générale bi ñu amaloon le 3 août. bu ñu tabaskiyee ba ci ginnaawaati suba ga ci kër borom Daaru Muxti gi am na ay fer yu sosaan ñu ngi ci amaloon mi ngi tolloon ci onze mille deux cent onze mooy fere ñu def ci assemblée générale bi carnet reçu yi yi ñi nga xamante moom moom la ñuy defar mooy carte barkeelu yi jox nit ñi ñu ci moo xamante bi ak carte membre yi liñ ci feree ci mois de juillet bi mi ngi toll ci deux cent seize mille deux cent seize mille mooy li nga xamante moom la defaree euh, carnet reçu yi ak carte barkeelu yi fan yi ñu nekkee daarul mooti am na am na dañu wër kilifa yi ay déplacement yu ñu doon def ci wàllu gasoil fere woon nañ ci euh, douze mille francs douze mille francs te mi ngi demoon ci wàllu gasoil bay daaru média am na ay reportage ñu doon defal ay yëngu ñu doon amal jox jox fere woon ci vingt mille francs vingt mille francs mooy la nga xamante ne couverture médiatique bi ñu bay daaru média doon defal maanaam li li ñu feree ci mois de juillet bi ci kuréel gi takku defee daaru muti mi ngi toll ci un million quatre-vingt-huit mille huit cent un million quatre mille huit cent mooy li nga xamante ni kuréel gi feral na ko ci mois de juillet bi léegi li nekkoon total bi mi ngi nekkoon deux million total bi ñu versé woon encaissement yi mi ngi nekkoon deux millions quatre mille huit cent huit deux millions quatre mille huit cent huit boo ci mayee un million quatre-vingt-huit cent huit kon day des neuf cent seize mille huit francs neuf seize mille huit francs mooy li nga xamante ni buñ buñ ci moyee encaissement yi moo ciy des mois de juin bi bi mu jeex kees gi deseloon nañ deseloon nañ fa cinq cent trente mille cinq cent cinq cent trente mille cinq cent mooy li newoon ci kees bi di jeex cinq cent trente cent bu fekkee neuf cent seize mille huit huit francs kon ci tey li nekk ci keesu Takku Defar Daaru Muxti mi ngi nekk un million quatre cent quarante six mille cinq cent huit li nekk ci kees gi mi ngi toll ci un million quatre cent quarante six quarante six mille cinq cent huit xanaa di jaajëfal ñëpp ba liñ ci toftal nag ab soññee rek lay doon boo xam te jëm ci kuréel gi di xamal ñëpp ni kuréel gi moom li ko tax a jóg mooy jaayante ngir liggéey borom Daaru Moxti ci dëkk bee di Daaru Moxti liggéey la boo xamante ni nag woo nañ ci ñëpp mboolem ku yaakaar borom Daaru Moxti baa nga def taalibe baa nga def jullit kuréel gi ubbi na la ay loxoom woo la ci liggéey bi ndax liggéey boo xamante ni liggéeyub lislaam la bi yàlla la te jëf ju baax moom foo waaye fekk mën nga caa jëf kon nag ñu ngi ci soññi ñëpp di ci woo ñëpp di xamal ne kuréel gi bari na ay naa lool yoo xam te mébét na ko ci dëkk bi mbooleem loo xam te ne rek lu jagal dëkk bi la suñ insha allahu rabbi bokk na ci yoo xam ne ni yéene nañ ko ngir ngir liggéey ko fa moo xam ci wàllum paj mi la ku nekk daaru mu te xam nga ne daaru wàllum paj soxla woon na ko lool sax am nañ ci ay yéene yu rëy ba ñu ngi kiy liggéey insha allahu rabbi moo xam ci wàllum ndox mi la am nañ ci ay yéene lool moom it ci wàllum ah, lamp yu mbedd yi muy muy éclairage bi moom it nañ am nañ ci ay ay am nañ ci ay ay yéene lool moom it ba tey wàllum dëkk bi ku ne xam ne nawet day bëri ay yoo lool lool lool lool loolu moom ci ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey lool ñu ngi ciy liggéey ba yaakaar nañ xëy na balaa yàgg dana am luñ ci luñ ci liggéey bu soobee yàlla am nañ ci ñu am nañ ci ay yéene loolu daal maanaam lépp loo xamante ne daal luy jagal Daaru Muxti la kuréel gi moom mooy xëy am xëyam mooy am ngontam mboolem kuréel yi na Daaru Muxti it kuréel gi tàll na leen loxo di leen woo ñu xam ni liggéey bi liggéey borom daaru la moom dong lañ ci sàkku ak ngërëmam kon ñun ñëpp buñ bu dee suñu bëgg genn la muy liggéey borom daaru war nañ ko mën a boole te jëm borom daaru rek tax ànd liggéeyal lañ ci mbébét muy muy ngërëmal borom daaru suñu borom defal ñu ko ci kon nag liggéey bi daal du liggéey boo xamante ne moom dañ ko féetale ñenn képp ku yaakaar borom daaru baa nga def jullit baa nga def taalibe liggéey bi mën nga ci bokk liggéey liggéey mën mën nga ci bokk xanaa di di di ah, beral ak cant mbokki soxna yi nag gis nañu liggéey bi moom am nañ ci pësteef lool lool lool lool lool dina xamal ni lu waaye jëf sa bopp la kon nag liggéey bi ñoom ni ñu ko taawoo yàlla nañ ci dajeeg tawfiix sëriñ bi ak ngërëm waaleykum salaam wa rahmatullah